Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé, chaque fois de partager des informations. Hein. Mbok Sénégalais, il fait faut les maintenir 14 régions du Sénégal, à Nouvelle Cup, ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi sécurité de feebar fàttuwuñ leen benn yoon yàlla suñu borom fëgg seen bopp ñu rek jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam ne judiciaire ak jiñ leen lu ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa dellu leen seen njaboot ñi fa seen yóbbu yóbbu jëf yóbbu plutôt suñu borom génnewaat leen teg leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna duñ leen fàtte benn yoon yàlla suñu borom eh, c'est yéen mbaane ci sen d'abord actualité bi gars dama exclusivité pour cette soirée bi gars ça se passe ici et c'est grâce à vous Jorgen Club waxna ci Sadio Mané Jürgen Club, nee na moom mi ngi sogo réaliser na Sadio Mané demna na nak lañuy en exclusivité comme on dit dans la famille de e-sport TV mais d'abord CAF Super League bien. Hein. Super League CAF bi 2023 la donc kiko gagner gagné di nga am plus de 11 millions de dollars gars 11 millions de dollars l'olnak nak mo Mostepe moo moko tek pour tek nga super euh, Ligue CAF donc l'on a gis ngeen ko ah donc nii lañ ko répartir naa ci ay détails jox leen ni muy demee mais sachez que c'est en 2023 la war a am li African Super League bi donc nekk loo xam ne compétition la boo xam ne aussi CAF dafay def un peu ni UEFA ak waa FIFA di def loolu yëpp dañ ci indi ay leeral ki nga xam ne également mooy donc Kalidou Koulibaly waxoon naa leen ko sànq moom la ñu indiwaat fii moom mu ne bëgguma di je ne suis pas là pour remplacer ki nga xam ne mooy Rudiger man je fais du Kalidou Koulibaly man maay Kalidou Koulibaly nee na ñëw ma fii pour remplacer Rudiger ah ñëw ma fii également ñu may comparer ak Rudiger man maay Kalidou Koulibaly yëfu Kalidou Koulibaly loolu lay def Leeds également United nga xamné actuellement ils sont intéressés par Ismaïla Sarr ñum génne nañ seen maillot extérieur mayo bu nice la mayo mo mayo bu nice la mayo cuub sax la xaw jox hein, les joueurs hein, de Leeds United l'ancien club de euh, Bielsa bien entendu Kukurela. mom néna na wa ñi nga xamné moy Blues de euh, Chelsea actuellement donc selon les dernières informations donc c'est fait Kukurela Fabio Romano également dernière information il va signer du côté des Blues de Chelsea 50 millions d'euros pour le joueur de Brighton nga Manchester City lay Casper Smichel a signé officiellement du côté de l'OGC Nice le fils bien entendu de Peter Smichel Gaï, Momnak actuellement donc mi ngi wane Barra bu actuellement en matière de trophée également Lille a gagné donc moom donc ñii di Leicester avec 11 ans 11 ans à la fa def ah gagné li donc FA Cup gagné na Community Shield ah. gagné na Championship gagné également Premier League ah. donc Momi. donc Leicester c'est 479 matchs également n'est à plusieurs fois meilleur joueur de la euh, saison ki nga également Alexis Sanchez Alexis Sanchez gars yi fii ak suba lay xaar ñii di waa Inter de Milan officialiser li nga résiliation contre am ngir mu du côté de l'Olympique de. Marseille Alexis Sanchez nga xam actuellement ñëpp a ngi koy xaar du côté de Marseille kii di Leandro Paredes il va faire le chemin inverse le chemin inverse plutôt madame Daidem du côté de l'Italie Calcio bu fekkee ne Alexis Sanchez de ñëw France moom nag dañ euh, selon les informations données par RMC et tout i moom dafa jox accord ak Juventus de Turin Juventus nag moo des pour négocier ak Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain bi nga xam ne di Renato Sanchez moom nee nañ aussi def na visite médicale am sax tey loolu wax nee nañ fii ak Paris Saint-Germain d'Ino officialisé, li nga xam ne signature mbirum ñi ngi wax entre 15 à 20 millions pour le milieu de terrain euh, portugais Renato Sanchez ki nga xam ne gaal nag mooy mooy Klopp Jürgen Klopp gars yi li wax nag ah daw na yaram ah lii wéykat bobu di wax naan lii daw na yaram sincèrement gars yi ah lii daw na yaram Jürgen Klopp nee mom moom ba muy seetaan match RB Leipzig bi ak ñi nga xam moy Bayern de Munich néna na ba mu gisee Sadio Mané néna sincèrement am na lu mu yëg dafa dafa am lu ko naqari quoi néna j'étais triste mais néna ba Sadio Mané dugalee nee na boobu lay soga xamné comprendre nga ne Sadio dem mais gars li jar na woy ah, li jar na jar na jubile ah. boo joo boo joo yee seen baay ñëw na waaw waaw waaw Liverpool yee Sadio dem na dem na Bayern gars yi comme on dit ku ku ku lamb dina yaa daagu fañ la nobee comme on dit yus kii nga xam ne nag mooy gars yi di Sadio magnifique Kaiser Mané donc gars yi actuellement Jürgen Klopp moom mi ngi soog a réaliser rek que moom ah Sadio dem na xaw ma dóor la xaw ma lan la mais en tout cas moom nee na sincèrement bu mu gisee Sadio Mané du jeu na parce que nee na Sadio Mané c'est un joueur xam ne musu koo gis mu kaas musu koo gis mu plaindre koo xam ne bu duggee ci terrain bi day joxe wu à plus l'infini pour cent. day joxewu entraînement joxewu lépp nee na moom ko gisee carrément ah, muy jouer ak xam sol Leipzig nee dafa am lu dafa am pincement au cœur xam yaram bi dafa également après ba non non non li gars yi wax naan daanaan dem na Sadio Mané aujourd'hui il faut rappeler que ne génération yoroon club bi ñu bees ñi wax yoroon club ba mu ñëwee ki nga xam ne nag bokk na ci première génération yi nga xam ne jël leen njëkk leen recruter bokk na ci Sadio Mané fi Kaiser Mané mais Sadio actuellement donc il est du côté de fi nga xam ne mooy donc la Bavière bi nga xam ne dañ ko accueillir sargal ko tatagal ko accueillir ko ah ou teg ko li nga xam moy tapis rouge mu ñew sol maillot bu rouge bi comme ni mu ko solee woon fa nga xam ne ci Liverpool maillot bi nak gën ko japp gën ko japp mais comme on dit ah ni ñi wax rek il ne faut pas oublier le passé li muy wax chaque fois Jürgen club bokku na ci tay ñi defar carrière Sadio Mané fi Kaiser Mané Sadio Mané ak Jürgen club relation bu fraternel bu paternel la amone tay Sadio Mané bu ba mu ñëwee fa nga xam ne Liverpool à partir de loolu nag yàlla may na tamit loolu barké boobu mu ñëw Liverpool commencé tak di gagner ay trophée mais aujourd'hui il est parti du côté de la Bavière du Bayern Dominique gars yi léegi Sénégal ñëpp dem migrer am visa wu Allemagne du Bayern de Munich gars Sadio Kaiser magnifique Mané c'est une fierté Yorgam qu'on lui dit merci encore Jürgen club pour tout ce que tu as fait pour Sadio Mané mais aussi Sadio actuellement dem na comme ni ne ko dem na ne ko dem na gars c'était un peu l'actualité de la soirée où il est de la toujours un plaisir de vous servir ça se passe sur la machine e-sportive en exclusivité gars yi ku mën na def lu baax ci la ak suñu borom lu bon ci la gars J'a ngeen